mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kolore gi ak wutee gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 euh, Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré kër ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróom-ñeenti waxtu jot na ca dina Cheikh ca Ndar bisimila ci xibaar yi. Euh, li ci gën a fës bokk na ci marché barak bu liberté 6 extension foofee nag dañ leen fas yéene euh, jëlee ca barab ba wàllu déguerpissement lañ cay daal nag amal ñoom ñuy seq marché bi nag daal di ciy amal ab euh, ndaje ngir daal di ñaawlu doxalin ni communes yi jëme ci ñoom dinañ ci dikk dikki ci ndorteelu xibaar yi lay doon maire ba futu la éleveur di sàmmkat yeeg béykat ya fare ca commune gu ngeek wax ak Sidia daal di nag def ca département bu Mbour ñoom nag la ñuy daal di nag lañ leen di jébbal ay suuf ci euh, forêt classée bu euh, Bandia euh, dinañ ci daal di àddu ci seen assemblée générale ba ñu amal tey jile dinañuy wax déeme itam ci gestion di yorin bi jëm ci wàllu nag mbalit meek logement yi ñu bëgg ñëpp daal di ci nag jot ministère collectivité territoriale ak bu ñu dénk wàllu urbanisme ak logement ba ci nag hygiène publique daal di cay amal nag ab ndaje la ñu bëgg nag mooy cadre de vie di alamu dund bu mucc ayib ndaje boobu Sosét Kali dinañu wax itam ci convergence jeune républicain yu département bu Kaolack daal nañu rek soppi seeni nag instance yooyu euh, ba tax nag ñu daal di euh, fal ab njiit lu bees COJER Kaolack kon euh, kii di bokkar Diallo moo fa daal di nag wuutu kii di Abdoulaye Diop dinañ ci daal di jukkee dinañu desandi ci local yi ponk la woon ci wax sa xalaat bi di ngeen ci mën a àddu itam gannaaw wàllu app gi ñu daal di joxe déggoo ba tey amu ca décembre 2021 la ku ji geeg ñeneen daal di nag jàpp ne dañ koy war di amal nag ànd ak Abdoulaye Diop suñu nattaango bi ci euh, kër gi dinañu wax itam euh, toftal ci yeneen xibaar université ak seen i jafe-jafe beneen ponk la woon ci wax sa xalaat bi euh, di ngeen ci mën àddu daal di ko jeexaleeg mbas mi niñ koy amalee saasu ne ci kanam tuuti lay doon wàllu tàggat yaram laataa ñuy ubbi antenne bi Assane moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi ñu daal di koy dooree ak euh, marche barak bu liberté 6 extension ñu fas yéene rek euh, daaneel déguerpissement bi moo fay daal di nag tab bi ni ëllëg lañu ko euh, fas yéene amal démolition boobu ñu jàpp ne daanaka tegalul ci yoon ñi nga xam ne ñoo siq marché yi rawatina waa marché ngelaw marché mbëbës ak marché barak googu ñooy daal di nag àndandoo jàpp ne commerce ñoom commerçant yi di joxar bi baaraam maire commune yi ñu daal di nag commerçant yi nee ñu ñu fare marché tension ñu fare marché ngelaw ak ñu fare marché mbëbës ñoo na àndandoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal xam ne daal li communes yi fas yéene def jaare ko seen kaw duñ ko bàyyi mu daal di nag jàll Odile Nkilan booy wër noonu jaaykat yi ci marché yi dawal wutali ji mairie yi waxuma ko de gédde njaay yore kàddu jaaykat ya faxe ñoom dañoo ñëw pour noot commerçant yi en 2005 ba léegi ñu ngi ci problème bi dañuy ñëw fekk nga investir sa alal yàgg fa suñu tojee sa place wàññi sa place loo xam ne yow doo ko mun a am mairie yi seen bopp lañ fi nekkal ndax ñun soo xoolee suñu problème marché marché bi dañ ko tabax c'était en 2005 bu ñu tabaxee marché bi lu ñu tabax baaxul expert état yi ñu bëgg wëlbatiku jël lu wër marché bi joxaat ko le même promoteur pour mu toj ko jaar ñu tax te loolu du yoon loolu duñ ko musa nangu. beneen marché mooy bi Liberté 6 extension. ko toj ci jeudi bii commerçant yi nag ne ñett loolee du fi amee. Rose Diogay moo yor seen kàddu. waa marché bi ak borom cantine yi dañu souhaité woon que maire jaar ci yoon. woo ñëpp toog waxtaan ak ñoom te wax leen lu leer ñëpp na am naqar ak tiis ndaxte ñoom nee nañ la quinze incha allah bu ñu ñëwee daan daaneel marché bi waaye ñun nag buuse ñu ngi leen di xaar lu mu leen jaral ñun ñi fa nekk jaral nañu lu ko raw. ci jafe-jafe yi nga xamante ne nag commerçant yi ñu ngi koy dund ci marché yi tax na nag ñu di ci woo njiitu réew mi Macky Sall. président Macky Sall nga jóg nga wax si lii nga wax si maire yi nga xam ne jeexal nañ ba pare ndaxte ñoom ñëpp si prolongation la ñu nekk te ñu ngi jàpp marché yi di rajaxe benn par benn di toroxal commerçant yi di torox. liggéey fay ko droit waaye amoo jàmm ànd ak seen préfet ànd ak ay policier di dumoo nit yi nañ may jàmm Macky Sall jógal wax ci lii. marché yu bëri nag ci Sénégal dañ koy toj ci ak li gën a loru rawatina nag jamono mbas mi ñu nekk ñu bari ci ñoom nag dinañu am ay jafe-jafe ngir dund ak seen njaboot. Odile Minkilaan daal di koy jaajëfal maire la yeneen di sàmmkat ak béykat ya fare ca commune bu Ngékoox ak Sindia daal di nag def ca département bu Mbour ni ñu daal di ñaawlu mooy la ñuy jébbal nag eh, ab pàcc ci suuf su forêt classée ñu koy jébbal eh, ñeent ba tax ci seen assemblée générale ñoom éleveurs yi ak agriculteurs yi eh, nekk ci seen i nag l'activité ne ñu gis nañ ne ñàkkum euh, barab bu yaatu tax na si jafe ñu ngi cay joxar bi baaraam nag autorité locale yi ak ministère bi ñu dénk wàllu environnement bëgg njiitu réew mi daal di ciy wax Cheikh Aldiouma Ka nekk président euh, fédération euh, éleveurs yu éleveurs yi ñu déglu ko ak Moustapha Sall. an soo seetloo du fay hectares yooyu ñooñ tax a jóg lii ay centaine de hectares yu joxe te ñun loolu des foofu ci forêt bi dañoo waxtaanoon ak autorité yi ñu ne li des dañ koy bàyyil foofu sàmm donc nag ñu ngi yëgal état bi ne forêt bii nga xam ne tey dafa nekk benn foore bu yaatu ñu jël ko jox ko joxe ko ba mu jeex ba mu des li fi des suñu ko jëlee bàyyi sàmm li ñuy bañ ci réew mi moo fi am ndax réew mu jàmm lañ fi bëgg te diggante sàmmkat ak béykat suñ joxee li fi nekk xeex moo fi nag ñu bëggoon nag état bi dégluñu ndax nit soo ko jabootee suy wax guddi wax bëccëg conférence de presse def nañ ko lu mat juróomi yoon. dem nañu ci préfet benn dem nañ ci suuf préfet dem nañ ci gouverneur préfet neen nañ teg liggéey bi ci kii liggéey na ko teg ci suuf wante du nañ teg liggéey bi suuf moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy autorités yi nañ ñëw toog ak ñun wax ñu fan la ñuy féete su fekkee bokkatuñu ci réew mi ñu jël ñu ah, génn ñu Sénégal ñu seeti beneen président bu président Macky ndax ci Sénégal lañ bokk mënuñoo bàyyi Sénégal fii lañ juddoo fii la suñu maam juddoo te li ñuy liggéey càmm la te càmm gi ñuy liggéey emploi du jeune la juróomi téeméeri xale yi dem bërki dem bu ci àll ba def fa violence bañ fa def yëpp ay xale la te ñooñu soo gisee ñoom demuñu Dakar demuñ ci bedd mi demuñ ci mbëkk mi càmm gi moo tax donc ñooñu nañ leen na leen état bi reconnaître ñu xam na ci liggéey en développé réew mi ci lañ bokk te càmm ki ak ak mbéy mi lii bi développé Sénégal ci la bokk. forêt réserve de Bandial waaw forêt classée de Bandial. waaw ah, su ñu waxee forêt. ministre de l'environnement mooy nekk ca bopp. wante moom document yi ñu déclaré gisuñu ko dañu ne. Ah, du loo xam lii dañ koo joxe contrat la wante contrat baag yooyu yëpp ñun daal xam nga lan moo lañ bëgg la fa des daal munu mënutuñoo muñ ñu koy jox keneen pop du ñun ñoo bañ population bi moo bañ suñu ko joxe itam lu ñu rëccu rek lañ ci am ndax population bi xes na ba commencé di manifester bërki dem bi ñu fay dem dañ leen a tere ñu dem fa te da lañ fa def rafetlu ko donc nag dañoo bëgg état bi jóg lu ñuy jël beneen promoteur muy jóge bitim réew wala mu nekk borom alal ñun population bi population Sénégal lañ te dañoo soxla fa ñuy joxe ñun ñoo leen ko gën a bëgg téeméer yoon. ay junniy junni nit ñoo fa dund nit ñooñu nag su fekkee dañ leen a bëgg rey nañ leen ko wax nit nag soo demee ba xoj ko ba rey ko bëgg rey mu xam da nga koo bëgg rey lu mu jëfandikoo lu mu mun rek da koy jëfandikoo. muus soo ko daqee bu duggal ko ci biir ne ah nga tëj bunt bi ci sa kaw la jëf. ci la ñuy daal di nag euh, wax ci gestion bi aju ci wàllu nag euh, mbalit meeg fexe ba jot ci wàllu nag euh, dëkkuwaay. moo waraloon ndaje bi am diggante ministère collectivité territoriale bi ñu dénk wàllu urbanisme ak euh, logement ba ci hygiène publique ak secrétaire d'État bi yore wàllu nag euh, logement euh, ngir nag fexe dund bi gën a mucc ayib environnement bi wàllu déchets yi ñu mën ci mucc bokk na ci li daal di nag tax ñu daal di amal liggéey googule kii di UCG di kuréel googu di UCG di ko daal di nag jiite ci loolee nag ñu daal xam ne logement yi daal moo gën a nekk seen nag objectif ci boobule euh, projet bu ko defee wàllu koom gi mën rek euh, suqaliku ci barab yu bari waaye itam barab yi ñuy duppe euh, cité dortoir mu mën fee rek jóge Josette Kali ci bëgg-bëggu autorité yi am ay dëkkuwaay yu set jot na nag collectivité territoriale yi dugal seen loxo bu baax a baax te gungewaale société bu yees bi ñu duppee sénégalaise de gestion des déchets donte ay jafe-jafe am na ci gestion wu déchets solides yi Abdoulaye Sow jëwriñ gi ñu dénk wàllum urbanisme logement ak hygiène publique. jafe-jafe yi mu ngi am d'abord ci jumtukaay waaye président nañu bu yem foofu waxtaan leen ak ministère des collectivités waxtaan ak maire yi naka la xool ba ñu def une mutation du statut de l'UCG ñu dem ci benn société boo xam ne dañ koy tuddee sénégalaise de gestion des déchets waaye mais war nañ ko waxtaan ak ministère de l'environnement buñ ca paree jébal ko président pour que ñu mettre ko en place jàpp nañ jafe-jafe yu a faju projet bi mooy naaw mu mën see jot bu ñu sukkandikoo ci Victorine Ank Dich Ndeye di secrétaire d'État chargé du logement. projet 100000 ku am kër ba pare bokkoo si mu ne projet 100000

maintenant d'ailleurs mën nañ bañ a wax sax à partir de maintenant parce que ñu ngi doon liggéey mais dañ koy gën a yokkaat pour que mu am cohérence d'ensemble pour ñu mën a am li nga xamante ni moom la président Macky Sall sant ñu ci yéene gi ñu am gën a ñoŋal dëkkuwaay gi ngir ñu mën a am ay villes yu set wicc yi les départements ministériels ñoo bëgg a sukkandiku bu baax a baax ci collectivité territoriale yi Odile mi ngi kii laan euh, pôle communication politique bu ministre bi ñu dénk wàllu mbéy meek équipement rural euh, di weddi tuuma yi ñuy daal di nag euh, teg ci ministre Moussa balde jëm ci nag dafay daal di yokk ak soppi chiffres yi nga xam ne nag moom la mooy département ba mu yore résultat yi noonu la tëddee professeur abdu balde Eh, bi coordonnateur poule bi daal di nag xam ne ne statistiques yu bàyyi ko ci direction statistique agricole eh, matale na sëkk amul lenn liñ ca daal di soppi ñu déglu ko moom professeur Abdoul Balde ci micro Amadou Moustapha Dieng. dañu seetlu taa yépp am na nit bu nga xam ne sénégalais yi xamuñu ko mu ne ministre de la de l'agriculture chiffre yu muy joxe du chiffre yu baax moom nekkul statisticien amul niveau bu koy permettre mu juger de la véracité ou non chiffre yooyu toog rek si néegam naan ataayaam mu ne chiffre yàlla baaxul chiffre yàlla ñoo baax et cetera et cetera yemul foofu mu ne porte na plainte ministre pour fausse information dafa dafa reetaan lu puisque nit ku am xel du wax wax ju mel nii mais comme moom théâtre kat la utiliser les réseaux sociaux pour tilimal deru ministre de l' agriculture parce que dañu ko yónni fii lépp lu ñëw si budget ministère si ayant droit yi lay dem mooy agriculteurs yi ku yor portable am di bugg a manipuler man rakku diw laa du tax ñu pasar pasare alalu réew mi budget bi c'est fait pour des résultats or ministre loolu mooy sa mission jëmale ko si béykat yi pour que ñooñu gis seen bopp moo tax ñooñu gis seen bopp lu xew si un million huit cent mille tonnes yu ministre wax direction statistique DAPSA moo ko wax te ñooñu ay fonctionnaire Sénégal lañu du ministre moo leen fal ñu ngi yoon fii avant ministre Moussa Balde dinañ fi continuer bu ministre Moussa Balde nakkulee fii c'est des fonctionnaires au service de la République jàng be xam seen métier bi maîtriser ko ñooñu lu ñuy wax du nekk waxu kasaw-kasaw amul laam-laamee mais pour quel intérêt d'ailleurs bu ñu tegee fale sax mbirum chiffre dem si dëkku gox goxaa Sénégal gerte bi ren dafa lamb si dëkk bi. ndax da ngeen porté kii kenn du ko porté plainte ndax ku wér ku ànd ak sagoom ngay porté plainte kii tey lu ñu koy ñaanal yàlla may ko mu génn si jafe-jafe yi mu nekk ak at mu de chef entreprise mais yàlla xam na de amul ñaari delam fifteen pour mu jënd kilo gerte loolu moo tax muy jooy ñu am xaalis kay ñu ngi jënd si agriculteurs yi loolu moo ko merloo te ñu nag teguñu ko lu ko nakari ah ñu daal di wax ci convergence bi ëmb nag ndawi républicain yi département ci Kaolack ah, ñoom ñi daal di yeesal seen i nag banxaas kii di Bokar Diallo daal di nag ah, ci déggo ba am ca assemblée ba ah, tey jii daal di wuutu kii di nag Abdoulaye Diop mi nga xam ne nag moo nekkoon président ba moom nag encouragé na leen daal di xam le leen ndaw yi faaw ñu daal leen jox ay responsabilité ñu déglu ko président sortant bi Abdoulaye Diop ci micro Mamadou Camara waaw loolu tamit dama koy wax parce que département Kaolack rek mooy département boo xamante ne li COJER am liggéey ci Sénégal benn COJER liggéeyu mais ba fii nii mosuñu responsabiliser benn jeune may ñaan nag président de la ak ñi nga xamante ñi ngi nekk si wetam di ko conseiller ñu responsabiliser jeune département Kaolack parce que mérité nañu man li may wax rek moom mooy chance bi ma amutoon man maa ngi koy ñaanal ki nga xamante mooy coordonnateur que damay ñaan moom parce que tey peut-être dañ ko gën a gisee beneen bët te affaire bi dina gën a mën a yaatu massification bi dina gën a yomb su fekkee ne moom day tibb ci poosam di joxe xam nga dañ doon toog solliciter responsable yi te damay koy dama fay jaaree nag gërëm responsable département Kaolack yëpp kenn mënu leen mais yi tamit kenn mënu leen coalition bi kenn mënul leen parce que ñoom ñëpp dañu doon jàppale activité bu doon def dañu doon jàpp sas naa ko moom ne ko lii weesoo man nag ànd kitaan mi grand ak ñeneen saa yi nga xam ne ñi ngi ñoom bale ndaw ñëpp dañ ànd ak bañuñ ko gère bañuñ ko moom tamit en tant coordinateur parce que xam naa ci dara mais xëy na ay mbir yu yoo xamante mën nañ ko régler suñu biir politique nag kenn mënul taxaw ne damay politique ñëpp bëgg ma loolu a encourager ci wax ay jigéenam ak ay ay euh, frère am ñëpp ñu jàppale ko ci dynamique boobu. Euh, beneen nag euh, doxalinu kuréel gi di COJER la ñu bëgg rek def ñoom ndaw yi daal di soppi politique ki ñu samp bees loolu la xam ne moom Bocar Diallo daal di wax ne nag dootuñu ko defati ponk moom COJER ba ngir di ko réglé mbirum politique Bocar Diallo coordonnateur départemental COJER Kaolack ñu déglu ko Mamadou Kawar. waaw très bien xam nga koo gis am na nda kii leader ku muy àndal loolu mënul waaye lu bon mooy nga jiital yow sa leader nga bàyyi yow sa intérêt te yow sa intérêt mooy booy xool intérêt ndaw ñi te booy xool tey jii ñuy wax ñu am problème xëy yëpp mooy problème ndaw ñi donc ñun dañoo jàpp ne ku nekk féetal fi nga féetoo mais bés bu intérêt ndaw ñi taxawee bàyyi lépp li nga jàppoon nga ñëw fekk si ñu parce que nag ndaw ñi ñoo lay taxaw problème yi nga mënta am ñoom ñoo koy confronté ñoo jàkkaarloog moom jàmmarloog moom wax dégg yàlla pour ñu saafara ko donc nag euh, biddiwuñ kenn wax nañ ko ci suñ discours dinañ ànd ak ñëpp liggéey ak ñëpp mais lu ñuy bañ ki nga xamante ne dañuy wax ne fii ngay xoolee nii ngay demee nii ngay doxee loolu duñ ko nangu. ñu daal di desandi ak euh, la politique bi ak élection locale yi ponk la sax ci wax sa xalaat gannaaw ba nga xamee ne opposition bi booloo ci turu euh, front résistance nationale euh, ñoom nag nee ñu ab élection yooyu du weesu décembre deux mille nag vingt et un loolu waral seeni nag ndaje ñuy àttu njiitu réew mi ci rek lépp lu ca ruuse mu daal di ciy jël responsabilité am FNR tey jii jàkkaarloo na ci taskatu xibaar yi ci teewaayu Abdoulaye Diop. front de résistance di di taxaw fa mu taxawoon élection gox yeeg gox-goxaat yi mën nañu koo amal ci atum 2021 Saliou Sarr moo yore kàddu bés bi bu si jëkk bi mooy évaluation processus benn weer doy na pour ñu def revue code électoral boobu ak code des collectivités ñetteel bi mooy révision exceptionnelle administration su boppam ni ñaari weer doy na bu amee ñaari weer am benn weer muy ñetti weer am ñaari weer muy juróomi weer ñeenteelu état bi même boo jëlee ñetti weer mu nekk jël juróom-ñetti weer. ñu sonn ci dàq bekk dàqaat bi mouvement ak parti politique yi nekk ci front bi di artu njiitu réew mi. jëndewul benn argument technique pour wane lu tax mënuñoo def élection yi 2021. loolu nag ñun duñ si d'accord dañu wax ni affaire élection locale daal moo taxoon. ñu daax daaxaat parce que audit ak évaluation nanu yam si deux mille loolu nag opposition moom la wax te fas yéenu si dellu gannaaw. ab cadre unitaire bu opposition bi dinañ ko taxawal ngir gën a mën a boole seen doole. loolu moo wax léegi muy unité de l' opposition bi nee def nañ si ay jéego yu. yu rëy te si ay fan yu néew daanu àggale yéene boobu taxawal benn mécanisme bu nga xam ne ni cadre d'unité d'action de l'opposition la nga xam ne ni moom sax moom mooy porter ce combat si biir Sénégal si bitim réew pour que le régime de Macky Sall mën a organiser élection yi jàll si leneen. de résistance nationale di artu seen xeex nag day soogaay tàmbali ngir ñu amal benn yoon élection locale yi ci décembre 2021. Abdoulaye Diop ñu daal di wax ci mouvement bi wuyoo ci turu convention citoyenne pour le développement bu Kaolack ñoom euh, samp nañ ko ay opérateur économique artisan ak yeneen organisation jigéen yeeg ndaw yi ñoo ko daal di séq lañ ca bëgg fexe ba Kaolack daal di nag jëm kanam euh, rawatina ci beneen i anam lancement officiel activité yi ñu daal di koy amal ca foyer bu Ndangaan kii di Moustapha Mbodj ci njiital convention bi. ñu déglu ko ak Mamadou Camara. COSYDEC convention citoyenne développement de Kaolack. mouvement bi ay opérateurs économiques ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci nekk. ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ay opérateurs économiques ñoo ci nekk. moom mouvement bi dàqul politique. développement rek déjà politique la kon mënuloo ne da liggéey ci dara te amul ak politique mais deful politique politique sax politique développement la ñuy def suñu objectif mooy fexe ba Kaolack changé fexe ba doomu Kaolack changé fexe ba Kaolack am beneen xarkanam am beneen jëmm fexe ba doomu Kaolack yépp bu ñu xëyee am ci luñ xëy ni ñu ko nar a defee mooy dañu bëgg a dajale booleem opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñi ngi fii ñu ngi bitim réew ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi fu nekk ñu dajale leen ñoom ñëpp su ko defee ñu waxtaan ak ñoom ñu teg suñuy projet yoo xam ne moom mooy jëmal Kaolack ëllëg mooy mooy développé Kaolack ba xam ne ku dugg Kaolack sax di bëgg Kaolack di ko sopp dëkk bi li ñu fi naqadi bëri na li ñu fi naqadi bëri na parce que dëkk bi ku ne xam na dëkk bi ni mu mel boo duggee ci dëkk bi tey dëkk bi Carrefour la donc Carrefour moo waroon a gën a nekk ville bi nga xam ne moo waroon a gën gën moo waroon a gën a rafet Sénégal assainissement éclairage public yooyu yëpp mi ngi ci biir amul benn secteur boo xam ne ñi fi nekk nag duñ ne doxaluñ ndax nit mënut a nekk ci dara nga ne nit mënut a nekk ci dara di liggéey nga ne doxalul mais kenn ku ci nekk dafa am foo xam ne fa nga mën a yem donc fa la sa vision yem fa la sa xam-xam yem donc nit ñi nag am nañ yeneen ñoo xam ne am nañ yeneen xam-xam am nañ yeneen idée yu ñu mën a développé yoo xam ne romb nañ euh, fi nga romb yoon bi fi nekk ndax dëkk bi ñun jeunesse Kaolack opérateur économique yi ak jeunesse bi ñun ñoo bëgg a dajaloo ñu def benn bloc pour seet dëkk bi nu ñu koy defaree mais dina xool ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk ci secteur bi Kaolack ñor na leen Kaolack soxal na leen war nañ mën a ñëw pour jàppale ñu pour Kaolack ñu ànd ñun ñëpp jàpp jàpp booloo nekk benn pour defar Kaolack mais képp koo xam ne ñun ñu gis na yow sa projet taxaw na pour Kaolack changer ci loolu dañ la ñu daal di nag euh, wax rek euh, ci présidence bu commission bu UEMOA Sénégal bi daal di nag jëlaat poste ba kii di Abdoulaye Diop daal di nekk euh, ñu faral di koy fal ca bopp ba mu wutu ci Abdoulah Bourema mi nekkoon ministre de waa réewum Niger ci wàllu économie ak finance muy dogal bi nga xam ne jël nañ ko gannaaw ndaje bi ñuy amal ci visioconférence ñaar fukki fan ak ñaar. ñaareelu session ordinaire bu conférence des chefs d'état gouvernement bu union monétaire ouest africain euh, kii di Abdallah Bourema mi ñu daal di nag wutu yore kàddu gi ñu déglu ko ci micro Sud FM. Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence ci ñaar fukk ak ñaareelu session euh, ordinaire bi ñu def ci visioconférence euh, chef d'état ak gouvernement yu UEMOA daal dinay daj daal dinañu daje gannaaw bi nga xamee ne nag mandat wu président commission bi ak i membre am daal di nay jeex juróom-ñetti fan ci weeru mai 2021 ba léegi conférence bi nag décidé na jox présidence su commission UEMOA candidat bi nga xam ne moom la Sénégal daal di proposé ci article 1 bi ñi la ñu nommé ci commission yi selon réew bu nekk. ci article 2 bi nag Abdoulaye Diop bu réewum Sénégal moom la ñu fal mu nekk président de la commission de la commission bu UEMOA. Au titre du second acte, Monsieur Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. Abdoulaye Diop ba nag ñu daal di fal ci bopp commission bu wa euh, bokkul nag ak Abdoulaye Diop bi nekk rek vice gouverneur vice gouverneur bu BCEAO te nekkoon fi nag ministre économie ak finance ci jamono euh, Abdoulaye euh, Wade tàggat yaram Euh, dañ koy daal di dooree nag ak euh, calendrier résultat Ligue des champion quart de finale retour yi diggante nag euh, Manchester City ak Borussia Dortmund Manchester dóor na ko ñaari bal ci benn kon nag Manchester City daal di nay rek qualifié ci demi-finale bi moom ak Real de Madrid mi nga xam ne mook Liverpool ndam demul ndam dikkul match aller bi nag Real dooroon ko ñetti bal ci benn kon moom Real itam am na tikkeem ci. wàllu euh, demi-finale Ligue des champions euh, beneen xibaar bi aju rek ci tëj bi ñu doon tëj stage yi nga xam ne ñi ñuy initié ci wàllu nag football amal nañ ko ci Dakaaru tey jile euh, ci li war a toll nag ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi participé woon ci loole nee ñu ñaar fukk ak juróom yi rek ñoo daal di jot seen nag diplôme licence D bu CAF Joseph Koto nag lan daldi daal di juróom-ñaari lu promotion bile. Euh, ndaje bi ñu amal ko tey jii ki nga xam ne sax moo jël major bi nekk ab euh, jigéen Ismaïla Marcel Coly ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu bokkoon ci stage bi lee ñaar fukki ak juróomi rek ñoo jot seen diplôme licence D ki xam ne lu ñu mel mooy Malick Thiam di président bu ligue de football bu Dakar. waaw fanweeri participants la amoon ñoo inscrire woon comme fanweer mooy nombre pédagogique bi moom la CAF permettre boo bi ñu amee fanweeri mais bi ñu amee ci biir dafa tombé ak euh, reprise u école yi on avait trois enseignants qui ont dit que ñoom mënuñu ñëw parce que dañu am ay amuñu permission ñoo nag dañ leen di dañ leen di dañ leen di yóbbu ci beneen promotion bi ñëwaat bi ñëwaat incha allah à la fin du mois mai mais ñu avons eu ñaar fukk ak juróom-ñaari candidat ñoo ñoo mujj def stage bi ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo ñoom la ñu recevoir ñu am ñaar ñoo xam ne ñu leen recalé. mu yokk ci ne Joseph Koto moom la ñu bàyyi lay juróom-ñaareel promotion bi mu ñëwaat ci li waral ñu tànn bi les parrains. ñu tous nous l'avons constaté. bu mag la bokkoon na ci CAN 86 ginnaaw bi Sénégal toogee fukk ak juróom-ñaar demu ca Joseph Koto mi nga xam ne joueur la woon waaye entraîneur ci équipe bu mag biir Jeanne d'Arc Joseph Koto moomu nga xam ne jamono ji ñu wax entreneur bi nga xam ne moo ëpp raaya ci Sénégal tànn ko pare nag yaakaar naa ne mënuñu woon am ku ko gën. on pouvait pas trouver mieux. Aïssatou doon major bi les promotion du ñuy xamal ne mbégte rek la ci am. bi ma yéeg nag dina jafe trop pour ma wax parce que vraiment fii man rek maa fi nekkoon jigéen vraiment ma nekk ak samay naataango ak euh, directeur de stage bi formateur yi nga xamante ne vraiment aw ma seen fay ñi ma nekkaloon tamit ñoo ma teg si condition yu tax ma nekk euh, major kon dama leen di delloo lii rek ñoom ñoo ko moom waaw sama sama xarit stagiaire yi man yi ma bokkaloon promotion bi. de clôture stage bile tey lañ ko daan amal ci ndakaaru ci teewaay récipiendaires yi seenay mbokk ak seenay njegenaale waaye ci teewaay autorité yu ngànk football ci mim réew kay kon nag mbokki xarite fii lañuy ñuy yemale jataayu wax sa xalaat jaajëfal ñiy woote ñi nekkoon ci ligne bi daal di nag euh, jéggalu euh, sud fiscalité lañ cay daal di nag toftal buñ ca noppee 22h ak Adja sa Ilimane Wane ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Assane moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërëjëf.